tey li fi dajale won moy ni ko wolof yi di waxé moy yenn ko ci xàddeen dañuy déggo djiji ay nak euh, bi mu ñëwé Sénégal ci ñetti ville la dem Dakar Tivaouane ak Touba ñun Touba li ñu concerne moy gestion des déchets plastiques donc bi ñu commencé processus ba légui lépp la nga xamné acte bu maire waron jël ci walu engagement ci projet bi def na déjà signé na charte d'engagement bi nommé na cadre de concertation bi par arrêté nommé point focal bi tey jii cadre de concertation bi la ñu doon en place mu nekk lu toll ci fukki ak juróom ñoo xam ne bi ñooy porte communication projet bi yemul nag ci fukki nit yooyu ak juróom ñooñu ñu war dem ci dëkk bépp fépp association nekk fépp kuréel nek. fépp koo xam ne kii projet bi intéressé waxtaan ak ñoom pour que ñu mën a porter projet bi ndax ji ji ay mën nañu indil projet mais la koy saxal la koy dëgëral ak la koy ñoŋal loolu population de Touba la commune bi nak monsieur le maire engagé wu nañ lépp loo xam ne mën na ci walu katan ak moyen ak accompagnement dinako and ak ak euh, ay pour réaliser ko déjà sax euh, war nañu dem sur le terrain pour visiter infrastructure yi nga xam bi bii ci la ñu war a sukkandiku déjà pour mën amal liguey bobu Ale Badara Sy coordinateur projet à l'Institut mondial pour la croissance verte euh, comme ni ma ko doon waxee léegi projet bi Grand Duché de Luxembourg moko financé Il financé Institut mondial pour la croissance verte ñu tann trois villes ñaar yi ñuy ville religieuse Touba ak Tivaouane benen bi ville de Dakar Touba luñ fi d'af, moy mooy dañuy valoriser déchets plastiques yi moy mbuus du mbuus yi dong waaye mën na bidon yi plastique donc lu bëgg d'af, moy créer benn unité pour xamni les dañ fay valoriser déchets yi mais type de valorisation bi étude technique dans les pour nous wax ñu bonne type de valorisation moo bar pour Touba parce que l'objectif mooy du donc dong mais dafar di ko jaay ba pare di am si euh, bénéfice ba pare projet bi du nekk ben projet ben at ñaari at mais projet boo xam day durer il yeneen dëkk yi dañ siy euh, référé wu donc moo tax ñuy def étude boobu étude boobu day am aspect financier day am suñuy wax business plan day am aspect environnementaux ak aspect économique ak social aussi parce que beaucoup tamit di gaañ ñoo xam ne ñoo ngi jëriñoo si euh, déchets plastiques donc loolu mooy suñu objectif projet bi tey dañu pour rendre compte mairie si liggéey bu ñuy def parce que gëjoon nañ fi depuis mois de mars beneen fànn yi mooy également préparé mission consultant yi réunion. ñëw nous recrutons recruter cabinet Un cabinet de faisabilité comme je nous expliqué définir option technologique définir les barrières éventuelles les rôles et responsabilités des acteurs ak les option nous war mettre en œuvre ak lan de dimensionnement unité l'unité. un cabinet bi ONG lay ONG à pendant 30 mois pour accompagner le projet dans le changement de comportement day avant de placer unité bi day durant placer unité bi même l'unité unité parce que le changement de comportement si si euh, dans le dans le champ du changement climatique waaw si walum changement climatique changement de comportement daf am solo parce que climat yi bu changé suñu comportement yi tax mu changé donc il faut que ñun devions ñu changé doxalaay ñuy doxé changé suñu suñu vision bu ñu am ci climat bi ak ci environnement bi changé également suñu vision bu ñu am ci plastique plastique lu bon la loolu dëgg la waaye plastique mën na am njëriñ ci création d'emploi pour jeunes yi ci yeneen élément mën nañ defaree plastique ak tëli mën nañ defaree plastique kër mën nañ defaree plastique ay table banc mën nañ defaree plastique ay yu bëre donc loolu moo taxoon ñu ñëwoon fii di expliquer maire yi fu ñuy fu ñu toll ak fu ñuy jëm. waaw projet bi wax bi du ci sore trop parce que du sunu euh, compétence parce que ñun déchet plastique rek dañuy nañu nañu gérer même si dañuy liggéey ak UCG waaye projet bi balaa muy ñëw dana développement benn stratégie ville verte stratégie ville verte moy ville bi nan la mën intégrer aspect changement climatique ci biir doxo ni muy doxé té bu ñuy wax changement climatique walum déchet c'est la bok parce que déchets yi souvent ñu ko bayé non à l'air libre bokk na su di contribuer di lakk la couche d'ozone couche d'ozone motax muy gëna tang couche d'ozone motax taw bi di di irrégulier euh, lu tax mu koy lakk parce que mbalit yi day lakk mbalit yi ni muy lakkee noonu moy produit méthane méthane ben gaz bu dangereux la voilà donc buñu créer ay euh, centre de traitement des déchets mën na tax ba problème yi du mën dina mën régler wu walu man sama wax si wàllum déchets plastique la mën a pour yeneen aspect yoo xam ne c'est par rapport aux déchets de façon générale foog naa ne UCG moo war a nekk seen interlocuteur man maa ngi tudd Ibrahima Sall di adjoint au sous-préfet de Ndam di am mbégte teewal fi sumay kilifa ci walu administration territoriale ànd ko ak commune de Touba ànd ko ak acteurs yi consultant projet JJ JIS muy projet bo xamné euh, de du Grand Duché de Luxembourg moko financer financé ko état du Sénégal pour ñukoy gérer gérer mbalit mbalit légui dootul lu ñuy sanni bu yàggee dootoo xam noo ciy def mbalit légui lu ñuy gérer la manam dajale ko trier ko transformer ko loolu moo indi projet bi tey atelier bi doon na def c'est que ci gàttal mën nañ jàpp ne li ñuy wax ne yenu xatu xaddeen dañuy yëgu parce que nit ki lépp loo koy defal même bu dee njëriñam la soo koy def te yëgu ko mën naa jàpp ne da nga koy def contre moom donc il faut que mu yëg ko mu xam ko boole ci biir boppam ko def pour que réussir donc monsieur Allé ak équipe am dañoo ñëw miser changement comportement Touba une ville phare une ville modèle véritablement vitrine donc lépp loo xam dañ ko fiy def rek dafa war a rafet dafa war a yar exemple parce que li dëkk bi la donc ñu nous générer en matière d'ordure surtout pendant les magasins. on parle de 3 tonnes 6 tonnes par jour 6 tonnes de déchets par jour fait pour nous une une organisation sérieuse véritablement une catastrophe surtout la gestion des déchets plastiques Certes, seetlu nañ nous solo trop projet parce que tout va monde fi zone yu bari inondées. inondé nous avons étudié, on s'est rendu compte que c'était des zones qui ont tout le yu et que tuuru mbalit lu ci ëpp dafay am ay déchets plastique donc ñoom ñoo empêché infiltration ndox bi pour mu bañ a dem bañ a dem moo tax souvent mu neen ay zone inondable di ay point bas c' est déplorable ñi am yaakaar nag ne ak projet bi véritablement lépp loo xam ne déchet plastique la ak solide dinañ ko gën a organiser mën ko valoriser nga xam ne dootul gaañ population mais également dina doon seen njëriñ ndax dina créer ay emploi ñoo ngi dégg léegi directeur di wax ne 4 projets projet employé 200 ou 300 jeunes 100 employés de manière directe et presque 300 de manière indirecte donc nous avons am solo la population bi ak ñi mu andam projet pour que véritablement mu nekk au Sénégal généralement parce que le Sénégal yépp fi ñëw Afrique sax mëna né monde entier yépp mais nekk ñëriñu wa Touba en particulier de population